commencé jóg nekk ci bu ñu defee vingt quatre heures wala quarante huit heures non renouvelable d' intense combat sur toute l' étendue du territoire national Macky Sall day daw c' est clair day daw waxeet lay def donc il faut que ñu gën a envenimer la situation sociale provoquer songu attaquer parce que moment bii nii Sonko toog noonu toog mi toog këram ñu naan ay dem nag nekk fa yooyu mu toog këram. ci biir këram parce que xam nga renseignement généraux ay xaj lañ gars yi ñoom ñoom dañuy def seen i film parce que rapport boobu lañ jox pour l'instant loolu lañ jox ñu ngi def seen stratégie mais rapport boobu lañ jox Macky Sall comme waa ji fa waa ji nangam ils disent lan moo tax boo seetloo gars yi fa dugg ku ci nekk dugg nga amul kenn ku ma ne Sonko nee na ma wax de man man aw ma lu fekkewu ma Sénégal donc lu ma cee wax rek lu ñuy wax la donc ñoom rapport bu ñu ne neen Sonko newul foofu ñoom ñoo ko wax du samay wax nee nañ ña fa dugg kenn génnul ne Sonko nee na ña fa dugg kenn gisu fa Sonko Sonko musul génn ci mbedd mi fekk booy toog mu ne leen big up wala merci wala ñu wane ko booy toog ci mbedd mi ba ci toog ba bu ñuy dem kenn mënu la cee wax ne mus na gis Sonko kenn musul la cee wax sunk musul taxaw ci buntu ba Sonko musul leen wax ak ñoom Sonko musul kenn duggul ñeent Sonko nee na ma kenn nangu ma donc ay rapport yu indi la ñoom wax ni comme quoi ko kon waa ji soit mi ngi ci biir toog génnul néegam c'est ce qui ce vraiment un peu mystérieux parce que nan la Sonko mën a nekk ci biir kër nit yi di ñëw di dugg te kenn génnagul ne sonk nee na ma wala waxtaan nañ wala sonk nangam da doo gisu même biir këram foofu noonu noonu gis ñu ko fa génnul benn yoon nuyu gars yi ñu koy seet si nangam donc c'est très mystérieux donc loolu seen wax la ñoom ak renseignement généraux yu fa dugg di infiltrer di génn donc ils ont dit que Sonko nekkul foofu ñoom seen wax nee nañ Sonko nekkul foofu parce que beaucoup de questions qui se sont posées wut ay soo xool xool xool ne ah kon kii nekkul fii kenn génnul ne gis na ko kenn génnul ne nee na ma kenn moom musul génn euh, euh, galvaniser la foule wala nuyu ñooñu wala wax ak ñoom ak donc loolu c'est c'est très politique c'est très c'est très. Euh, ay affaire lu euh, mu tudd ay enquête police laak yooyu loolu man nekkuma ci niveau boobu aw yàlla mayuma xam-xam googu donc ñoom renseignement généraux policiers ak gendarme yi ñu yóbbu foofu ñuy taxawaaloo ko di wut information donc ñooñu ñooy dem joxe rapport man du ma wax la lu dul rapport la ñu yóbbu ca taabal ba ne waa ji nekkul foofu loolu kese laa ci am te loolu laay wax dem sama yoon man lu ma ragal a wax toog fay jooy voilà mais loolu lépp ñun on absolument rien à foutre loolu ñoom la ñun la jeunesse dañu war a jël sañu responsabilité taxaw xeex jëlee fi Macky Sall avant loolu fipp farata la foofu la ñu toll foofu lañu ñu liggéey bi dañ ciy liggéey ay liggéey yu ba nga xam ni ngir yàlla il faut que sénégalais itam def ay jóg leen gars yi jóg leen taxaw leen na combat intensifié wu nit yi dañoo ci xeex bi de nit yi dañoo sonn ci xeex bi di effacer ay ennemi one by one one by one di di lu nekk da lu nekk dañ dañ nañ ko ci xeex bi lu nekk dañ nañ ko ci parce que lu ñu gëm la ñu bëri ñi doon gunge tey aji saar kenn gungeetu ko quatre-vingt-dix pour cent li maa ko liggéey man maa ko wax quatre vingt pour cent maa ko liggéey maa toog ak samay bazoko ak samay bomb di dóor di jaxase di jaxase Gabriel Kane dafa musoo gunge aji saar tey gisu leen kook aji saar Napel dafa mujj a mus a gunge Adji tey gisu leen kook Adji Sarr ñi ñi ñu xamee woon Adji Sarr bras droit am bras gauche am ñi mu doon nekkal suba ngoon guddeeg bëccëg ñépp kenn tey gisu leen ko tey dafa wéet ci boppam gisu leen fa sax papaam papaam da doon ñëw tey gis gisu fa benn mbokkam Adji Sarr tey dafa wéet ci boppam donc instant yi corps yu ko waroon yëpp man déstabiliser naa leen corps yu ko waroon yëpp man maay wax corps yu ko wër yëpp déstabiliser naa leen door naa samay lacrymo gazé naa leen ñu seey Adji Sarr fu mu taxawoon ti Gabriel kan ma door mu seey ñoom Hélène Gaye daw ñooñ si kaaba lañ ne ñooñu intéressé ma sax quoi mais connasse googu noonu wër les connasse laa ñu wëroon foofu noonu yëpp dama gazé naa seen maam ñoom ñëpp seey Adji Sarr gis ngeen ko tey Gabriel Kane taxawu fa jegewu fa en grande partie bokk naa ci ñi def samay kéemtalaay kattan jaayante ba nga xam ni ñi ñi mu yaakaaroon ni ñooñu ñëpp dama leen déstabiliser ba à la bërki démb gii avant bu bu mu waree dem procès woo na Gabriel Kane ne ko kaay gunge ma ki nga xam ne mooy nappel moom ngeen doon gis suba ngoon guddeeg gisatu leen ko fa taxawu fa tey gisu leen fa kenn mbuujaa mbuuj gee fa ne ñu mbalit gi muy for nangam ne amatul ñi ko doon taxaw di nekk ci télé rajo yi en grande partie ñoo ñu tëbuñu rek dem seen yoon dañoo liggéey ñun ñoo toog di dóori sañuy base quoi dóori sañ bomb jaxase jël information fëgg def sañuy affaire ba nga xam ñoom ñëpp seey ku ci nekk fuir taxawee nële kooku nekk kese nga génne numéro am lokk ci numéro jox gars yi ne acci déstabiliser leen ko ñuy déstabiliser déstabiliser ba nga xam ne ay nitam ñoo ko wax ne dugalal la sax photo Mollah Morgun mel ni yëguma ko ko day fen moo ko gën a yëg Adji Sarr nit la du malaaka du jinne saytaane la nag fu mu laal mu tàkk mais nit la saytaane apôtre saytaan la mais nit la day déstabiliser wu bopp la am boo saagaa ndeyam day jaxasoo day nit keesa la di jigéen du commando du naa colonel du du rayul nit du sadik de dara nit la boo saaga ndayam mu reculer boo ko yuuxoo boo tax mu paniqué wu comme ñu ko waroon paniqué wu ñoom nappee lay paniqué bay daw ay ñoom Gabriel Kane di daw taxawee ne ñoom Hélène Gueye di daw di taxawee ne ñeneen di daw kon du du Adji Sarr moo ñu mun a tenir peuple bu taxawee population bu taxawee parce que dafa rey vingt quatre personnes a Adji Sarr vingt quatre personnes vingt quatre kër ñi ngi jooy seeni doom te bakkan dafa fort te lépp ci affaire Adji Sarr pexe bi complot bii la amee donc on lâche pas l'affaire on lâche la l'affaire affaire bi dañ ko war a teg vingt quatre heures quarante huit heures soixante douze heures affaire bi jeex la fin et proche konk gaa yi nañ gën a taxaw nañ gën a déterminé wu nañ gën a nekk ci mbedd mi nañ gën a jëmmal sañu bopp ci mbedd mi lijjanti situation bi mu jeex takk nga xam ni pexe yu ñuy jéem ñun duñ ci fekk fekk lijjanti nañ lépp ba mu jeex tàkk loolu kese moom moo fi nekk donc nañu rejoindre la Casamance ñi nga xam ni ñoom ñi ngi xeex di ci rey seen bopp boobu ba léegi tooguñu il faut ñu rejoindre leen il faut ñu matal euh, suñu yéene il faut ñu gars yi bu ñu bàyyi bu ñu bàyyee dee sauver ou périr la ci xeex lañ nekk nekkuñu ci ci song di bàyyi na gën a intensifié wu démb warul gën a tàng tey démb warul gën a tàng tey parce que ñoom benn plan lañu am plan de condamnation mais Macky buggul bëggul juger Ousmane Sonko par contumace bu ko juger par def fa bëgg après contumace wax nañ leen ko contumace mooy du fa nekk te contumace doo ko def koo xam ne munoo mu mi ngi ci biir dëkk ba di dox ay soxlaam Ousmane Sonko ci biir Sénégal di dox mu ngi biir Sénégal dawul demul fenn. dawul demul fenn mi ngi biir Sénégal toog nañu def bay jàpp ñeneen ñi buñ ko bëggoon def nañ dem c'est tout ko waa Casamance defee nañ leen ne leen laal dee jege dee joxoñ dee jublu dee <laughs> fu ne nii waa Casamance ñoo gañe parce que Macky Sall ñëwul jëm jege ñëwul jëm kon contimence boobu noonu yabaate la te bu ko defee tamit peuple bi dañuy génnaat rek <laughs> kon moom mooy c'est nee nañ ñun wóotuwuñu leneen dañ ne Ousmane Sonko koo ko xañ élection taal nga dëkk bi ku ko bëgg a xañ élection mooy dëkk bi du am élection ku ko bëgg a xañ élection mooy armée bi dina jóg ku ko bëgg a xañ élection mooy dëkk bi dina tàkk ku ko bëgg a xañ élection mooy dëkk bi mun na am sax guerre civile loolu peuple bi dañoo déterminé wu ci niveau boobu foofu lañ ci toll donc que mu nekk par contumace wala mu nekk nga jël ko yanu ko yóbbu mais Macky Sall lu mu bëgg moom mooy jël Ousmane Sonko téye ko toroxal ko yanu ko yóbbu ko teg ko fa jugé ko ci dossier bii 471 pages génn ay audio teg yu mu monté génn ay vidéo am yu mu monté teg génn ay image am teg yàqate ko ci Sénégal te ko ci Afrique sow jant yàq daram tëlimal ko defal procès moral bu salte salté salté pare ñëw jël ko tëj ci kaso parce que loolu mooy objectif te loolu ñun waruñu taxaw di ko seetaan donc gars yi li ñu leen di wax rek moom mooy affaire bi dafa war a gën a amplifié wu affaire bi dafa war a gën a am fulla dafa war a gën a am fayda voilà nañ gën a yokk loolu rek moo tax ñu ñëw di wax nañ gën a yokk euh, fulla gi nañ gën a yokk farata gi nañ gën a révolté wu nañ gën a indigné wu nañ gën a indigné wu nañ gën a taxaw ngir yàlla lillaahi wa rasuli senegal ngir yàlla ñun bu ñu xoolee ci Mali xool ci Guinée xool ci Burkina xool ci Côte d'Ivoire sax am na fi xool ci euh, euh, Algérie xool ci Tunisie xool ci Égypte dañ war nañ mën a am fulla ñun war nañ mun a am sax benn sawaay benn yoon xanaa nag xanaa nag dëkk nag dëkk nag mënul nekk benn dëkk boo xam ne ay président dañuy ñëw di toroxal askan wa ba ba ñuy dem am ñi am ay def fa 12 ans ñi def fa 17 ans ñi def fa 15 ans te peuple musu ñoo am musu ñoo am possibilité daj ti benn président noo ko joxe mais loolu sawaay c'est une maudite histoire c'est une maudite histoire un pays nit yi di dund di dee ñeneen ñi di dund di benn pays boo xam ne ay jeunesse moom moo ko constitué mu suñu déjati un président président day ñëw ñu fal ko mu leen di toroxal di toroxal ay douze ans quinze ans ba ba jógal fa boppam mais war nañ mun a am possibilité nag léegi nag di mun di dëjj déjati président di ko déjati ñu bum mu jóg ñu sànni ko ca moom la Mali def Mali a la même chose il a réussi population laa leen wax waxuma leen armée Algérie def nañ ko ils réussi Égypte def nañ ko ils l'ont réussi Tunisie def nañ ko ils l'ont réussi Burkinabé yi ñoo génn di xeex di xeex di xeex ba militaire yi ñëw jël affaire ba ils l'ont réussi ak yeneen dëkk ak yeneen dëkk ak yeneen dëkk population bi il faut tam ñu ñun gën a mun a farlu il faut ñu bañ a toog ab docteur après la mort il faut pare à tout éventualité donc chers sénégalais encore une fois tey waroon na gën a mun a tàng tey gën a war na mun a gën a mun a boy waxuma na xeexu leen mais dama ne affaire bi dafa war a intensifier wu. encore in fois dafa war a intensifier wu na tàng jër jër jër jër jër gars yi sauver ou périr wallahi la azim ñun waruñu normalement bu ñu ko tàngaloon nañ ko war a tàngalee jër jër jër jër jër Macky du am sax fitu naan day dem jëli ay Ousmane euh, euh, le jeune Ousmane la di ko tëj ci kaso yi. di jàpp ay journal di tëj ci di leen yóbbu di leen tëj donc loolu waruñu donc gars yi encore une fois nañ gën a intensifier tiir yi nañ gën a taxaw nañ gën a occuper les rues parce que loolu moo ñu mën a libérer di leen xamal loolu te di leen wax ni ñun procès Adji Sarr ne nous intéresse guère intéressé wuñu sequñu ko aji Sarr amuñu jotam ñun sañuy leader politique la ñuy sauvegarder la ñuy sauver la ñu war a protéger contre vents et marées voilà di wax euh, euh, population wu euh, Ziguinchor big liggéey bi rafet na merci beaucoup et que da nga yéen seen bopp génn leen wax yeneen population wala yeneen peuples yi wala yeneen régions yi tam ñu jël radicaliser comme yéen comme ni ngeen di taxe wax leen région yi yéen génn leen wax leen région yi yéen waa Casamance wax leen région yi nañ leen suivre nañ suivre affaire bi bu ñu toog di seetaan wala di def ay demi mesure ils doivent le faire wet gore wetalu ko gore benn population mënu fi nekk Ousmane Sonko c'est c'est national c'est pas régional c'est national capital bi tey bu ñu ko déstabiliser woon occuper les yi kon heure bi kenn waxatu ko kon war na mun a gën a intensifier wu guys war na mun a gën a intensifier wu xeex bi parce que bëgguñu yegg ci étape étape bi Macky Sall la bëgg kon encore une fois les gars on continue ce combat comme ni ma ko waxee on n'a pas besoin di dem ji wax waxu procès man nekkuma fii di xool di dem dans leen quatre cent soixante onze page bi fii buñ ko détourné fii lañ changé lii audio yi nii lay wax nii ñoo ko monté vidéo yi nii lay lu ma leen ci war a wax wax naa leen ko wax naa leen li ma leen ci war a wax nee naa leen gars yi def nañ seen i audio teg def nañ seen i vidéo teg def nañ seen i image teg créé nañ seen benn dossier boo xam ne quatre cent soixante onze pages c'est c'est inadmissible un dossier vide bu leer naññi xar yi di ko mbee ñëpp xam ko muusi di ko ŋeew gars yi dem lijjanti seen i këy dugal génne ba indi fi dossier bu quatre cent soixante onze pages dugal ci seen i audio seeni video vidéo seen i image def li ñuy def naan kaay kaay ñu dem jëli Ousmane Sonko nañ ñëw siise ko bu ñëwul am nañu siise ko tubaab nañ ko tëj <laughs> loolu de yomb na de sama gars yi loolu yomb na de ah kenn du seetaan loolu donc soyez prêts les gars foofu rek laa yem ak yéen di leen ziar di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen béggee bu wér di leen wax ne ñun duñu seetaan ñu jël un leader politique politiquement teg ko ci ay raay yoo xam ne pour le liquider. ay Hippolyte Ndeye di ko kii euh, le frère à Victorine Ndeye euh, di gelu Madiambal Diagne ñi teg seen i plan structuré ko ñëw toog jël juge def lu leen neex ñëw ne dañuy juger loolu moom dafa yomb sincèrement dafa yomb trop bu leen fàtte Maham Diallo lépp Maham jàlloo ak mu Amadou Diouf ñoo ko liggéey lii lépp Maham Diallo ak Amadou Diouf la ñoom ñoo téye dossier bii di ko monter di teg di mot ak Bassirou Gueye ñetti ñii Maham Diallo Bassirou Gueye ki nga xam ni moom mooy Pape